ألا إنني أرجو من الغازي اللقيم بجاه المخفانا سر الحق في الحقيق ألا إنني أرجو من الغازي اللقيم بجاه tey ñu ngi fii ci dëkk bu ñuy wax Touba Ndiolor Gueye ci benn événement bu rëy waaye daayira Touba Ndiolor organisé ko ñu ànd cee mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi ñu ñëwoon fii nag def ci reportage ñu ngi ànd ak sëñ Mouhamed Gueye Yoro xaara ñu jox leen mu leeralal ñu lan mooy cosaanu dëkk bi ak lu waral bis bi tey bisimilah Mouhamed. waaw bay ji bi jërëjëf lii boo ko gisee ndeysaan sa xel nga dem ci lu bëri barkal la lii dañuy dëkk la cosaan ndax ku ne mag na ndaw. na ndaw yi ñooy magi ëllëg xale yi ñoom ñëpp ñoo bokk benn maam ginnaaw bañ xamee loolu lépp lañ maam ko benn def def benn mhm. ñëw seen dëkk maam li yaakaar naa koo gis sa xol dana sedd ñii ay jarbaar lañ bi ñii ay sër lañ bi waaye li waral seen colaay nekk ci benn bi rek ak seen jëwriñ di soxna Kumba Thiané ñu ne lépp lu fi nit di naan wala muy lu ñoom ñoo koy liggéey duñ ci xaar kenn ñoo génne seen alal jaayanteel seen bopp ñoo génne seen alal sañ seen seen bopp parce que yéen ànd ak yéen ci bis bi incha allahu rabbi kon loolu mooy seen taxawaay di leen wa ahlu xidma di lañ ko fas commencé nag ba faaw incha allahu rabbi kon li ñu laajte xamal ne Ah, bis naka tey yéen ñëpp yéen a bokk lépp yéen a bokk benn maam lii rek wan na leen lépp ndeysaan barkal ñu bëri na xamante woon waaye léegi nag xamante nañ kon dañuy sant yàlla bu baax baax di leen xamal ne dëkk bi seen dëkk la seen dëkku maam la bu ngeen ko jàppee seen dëkku maam la ñëpp seen dëkku maam la te ku ci ne amul cosaanam fii nga jël segoo fii nga jël tiitaroo fii seen kër maam du noonu kon nag jërëjëf Baye Jibi isaakamulaa yàlla nañ ko fekk di bàkk seen tubaab jërëjëf mu amee tey moom lañ àndaloo ci wax am solo solo gis ngeen yi seen seen ko defaru nañ ba lépp ngir seen seen seen di biir sëñ bi ci biir dëkk Touba Ndiéréer comme noonu ko Mouhamed waxee. maa ngi ñëw wala leen di bàyyi ñu jàll ci biir waa ba ci kanam incha allah. kon nag jërë ngeen jëf. kon ay siyaara bu baax a baax baa ngi dañu àndal suñu xarit sëñ Maga Seck di jëw ci kër gi. waaw dafa salon fii moom fii la fekk baax fi may kër maamam tubaarkàlla kii Baye Balla Seck mooy waajuram wu góor Balla Seck xujja ku ko tubaarkàlla mam Balla Ngoore ko meññ mam Balla Ngoore tey ñëw ab atam nekk ci ay fotom rek nag tubaarkàlla di ñaanal doomam yi nga xamante ne ñoo jot a jiitu suñu borom yokk seen leer wàññi yi nag day cosaan ah. daa bokk ci wàññi mag yi warkal la xam ne si ne maam daan na fi bëggee la gan ki ne daan toggee kon boo gisee tey ñu bàyyi kër yi yëpp bàyyi kër gi ñu bu fii tànk cosaan kon daal dëgg-dëgg xale yi dégg naa ne cosaan xanaa kon dañu ni bàyyi rek euh, jëwri ni waañu yi di bàyyi Thierno Ba moo di mu ñëw gën ñoo xamale kër gi ñu nekk mooy ban kër bàyyi Thierno Ba jotaan li ak kër gi mooy ban kër lañ ba nga xam ah fii fii mooy kër Mbacke Léone kër Ndiaye Mbacke Léone fii mooy kër Ndiaye Mbacke Léone moo tax ñu bañ a toog fenn fii fii ci kër gi fii Mbacke Léone moo tax kër gi suñu mbir bii lépp waa kër Mbacke Léone genn gi ñaar ñett ñeent ñeent yëpp Mbacke Léone moom moo tax ñu bàyyi fépp ñu toog fii kër a dara jaal kër gii nag bëgg ko fonk ko ko dëkk ci kër gi fonk kër gi ndax kenn amul lu ne noo moom dañ koy fonk ba jusqu'à présent ba keroog ñuy faas noonu fii. jërëjëf Baye Thierno ginnaaw ba nga sëgg ci cin li gestu gis mbokk yëpp saa boo sëggee gis say mbokk gis say jaam tubaarkàlla gis say góor gis say jigéen gis say sang yaakaar naa képp ku nekk Mame Mbacke la muy ne Thierno Ba ci wàllum togg tubaarkàlla ki ñu àndal di sëñ màggat dañoo bëggoon nga sànni benn appel boo xam ne si ne say yeneen mbokk taalibe yi nga xam ne si li ciy wax mooy li ma waxoon sànni rek nit day foog boppam jëriñ bëgg yooyu suuf yëpp kenn koo gis ku ne kër goo dem ku ne am na borom fi nga nooy borom danoo bëgg nag di ci woo ñëpp nag ci daayira bi ñëpp bokk si liggéey bi ñu wax bokk liggéey bi ndax boo baaxee moom bokk rek la am boo bàyyi say bokk yi bokk jàmm rek nga def loolu noonu danoo bëgg suñu beneen bëgg suñu bopp lii leen foog waaw kon boo demee ñoo soñ ñëpp nag Sénégal gépp njëloon gépp bokk ñëpp ñu leen soñ leen ngërëm leen sax koo ñëpp bàyyi kenn fooy mën a nekk rek ñu ñëw bokk suñu liggéey bi ginnaaw bi ñu jugalee ci waa ahlu xidma waa kafa gi ñëw jaar kër Baye Mbacke ca la ñu ca waañ wa ànd ceeg suñu gidd bi nga xam ne moo ñuy leeral ci ëpp ci biir dëkk bi am lu saytu ci dëkk cosaani xam ko muy Mouhamed Gueye Yoro ñu ngi waat fii ci waañu kër Baye Birima Sène ànd ak Mouhamed kon nag nañ leen mooy cosaanu eh, waañ ak lan mooy taxawaayu fii nii bisimilah jëf Baye ji ni nga ko rek na nga ko waxee woon fee ci kër maam Mbacke Lamine noonu tey lañ ko waxaale fii ci kër maam Birima Sène ndax xam maam Mbacke xam maam Birima benn a def dara moom Baye Birima kooku ko maam Mbacke Lamine maam Mbacke Lamine noonu kon nag tey xale yi déclaré nañ la seen maam yi doon dox la seen baay doon dox tey Baye Birima bu ñëwaatoon bi jamono xolam dana sedd barkala kon ñii sàmm nañ kóllëre gi nga xam ne seen moom la leen seen bay bàyyi loon euh, Baye Jibi fii mooy kër Baye Birima Sène tey ñu fekk fa jëwri nag di bay Dawda Sène ak rakam ji di Baye Modou Sène ak suñu bàjjen bi tur soxna Maada Sène di jàmbaari waañ wi warkaa la ñoom tey ñoo ngi dundal fii gàmm Touba Njuloo tey 2022 ci wàllum xéwali ci lañ togg waaw soxna Fatou Dibati moo nekk noonu tubarkaale ci li ñu ñëwoon ngir war nax moom moo jawatu bi ma seen ñu ñëw ci waañ li ñu war li ñuy wax kay taa nga jëpp ma tam naa sant leen gërëm leen ñaan nag ñu yokk ko faaw képp ku taxaw ci bis bi am nga mbégte am nga kontaan kenn daa am lu gën mbokk say xarit say am di jàmm yëpp daje wax di yàlla loolu lu am solo kon ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm di leen wax nag ay ndaw ngeen lii nag mooy taxawaayu ndaw ndaw day fekk lu baax mu teg ca tànkam mag ñi soo ñu ko ci ànd ci ak ko ba fa nga xamante ne fa la ñu yem ñoom ñu jàllale la ca des kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax asalaamaaleykum wa jigéen ñi maa ngi sant bu baax di leen gërëm woote ñu wuy si la rek kon nag dañu amoo seen fay yéen it amoo seen fay di ñaanal sama ñaari mag yi yàgg ci lool di ñaanal sama awu buuru këram bi ñoom ko dëgg ko yàlla defal di topp sama desin fan bi joor baax moom maa koy ñaanal li bëgg lu lépp lu ci waaye liggéey rek askan wi seen yàlla na ko yàlla suñu borom. tam ni nga ko waxee léegi rek dañuy sant yàlla bu baax ñu ngi ñu ngi bàyyi ko kër Ah, di doom ci maam Yoro gi moom fii dafa yàgg barkala maam Seex fi nekkoon ànd ko njabootam ba yàlla moom ko njabootam googu nag tey ñoo ñëwaat fii di fàttaliwaat loola di dundal loola di kóllëre goo xam ne si ne barkala seen bàyyi doon na ko sàmm waaye nag balay boobu dan lay bàyyeeg eh, sëñ Baara mi nga xam ne si ne mooy jëwriñ ji taxaw taxawaay bàyyi Seex barkala ah, te yaakaar na yaag sëñ mbay gu mag mbay kilifa gi waaye moom moo fi nekk kon moom la ñu xam mooy kilifa gi ndax ci kàddu sëñ mbay la wax ak sëñ baara gi fi nekk barkaal la waaw moom nee na daa wax waaye daal xëy na li ñu koy waxal mooy ah, dafa xaw a bari kersa te mënu wala wax ndax yare noonu ndax du maam jëla yor ñuy ziare bu baax di rafetlu liggéey bi lool mhm. ñaan yàlla di ko teewaat bu jot rek ci barke sëriñ Touba mhm. leen daal ñoo xam yàlla nañ ko yàlla defal ak suñu maam yi tëdd ci ci suuf ci yomal xiyaam yàlla seral seen i yax mhm. waaw ñu yàgg koo def daal yàgg leen a taxaw mhm. lépp lu ci waay def na dërëm bu ci waay def yàlla na ko suñu borom ful ba nekk ay milliards mhm. ba kenn ko ne mën a defal sa bopp ba léegi nga xam ne kenn ku ne yaay am yéene defal ko sa bopp ci jumaa jeeg ak màggal gi yëpp ci barke Serigne Touba yàlla na ko lépp lépp barke borom ak ñoom mag ak bi ndax daje dafa neex di say mbokk dafa neex lii dara dàqu ko ñu ñu toog yàlla yërëm leen te xaale naa jënd suuf seen muy seen kaw ñu ñaanal ñu fi dese ñu yàgg ko te yàgg ko teew ñu ñaanal ñëpp di kontaan ngeen def di kontaan ci Yoro ak Baye Jibi di kontaan ci bi yëpp daal

ñëw laaj ko mu leeral lan moo nekk cosaanu waa ji ak taxawaay bi ñëw fii nag ki nga xam ne kër àll mbëgge tey boo gisee kër àll mbëgge gi yëpp mànkoo bokk nekk benn ñu fay taal yëpp ñu taale fii am na lu ko waral lépp lu masaana xew muy xew mbëgte muy xew naqar fii la ñu taale kon tey xale yi delluwaat na buum ci béy béy ko kon xol sedd na kon tey àll mbëgge jekkwaat na Baye Serigne mii mooy doomi maam àll mbëgge àll mbëgge tubaarkàlla di doom ci maam Baara koo jóg ah yow mii tim di maam Assane maam Jibi Xuja jur Jibi Xuja moomu ak mam allah bëggee ñoo bokk benn bay kon tay ñi ay soxna lañ tubaarkàlla ci njabotu mam allah anu, bëggee ñi ay jabar la jëkër gi kon xalé yi demoon sëy yëpp ñëwaat nañ tay déclarer seen bisum mam ki moy ki mak ci njabotu mam allah bëggee gi di soxna Fatma gi kon dal bay ji bi mbir la mo xamna ci ne leneen leen seen bay bàyyi loon lay loolu caaxaane wuñ ko te ñoo koy sam bu baaxa baax ndax bi wootee wuy si nañ xamna ne na seen mam ay ku ci nek yaa ngi sa kër mam di déclaré sa cosaanu mam kon nak njoba gaa ni ñepp ngi ni tay allah anu, bëggee dekkiwaat na kon nag loolu amal lu ñu si sànniwaat nga xamal ne fi ngeen def seen loxo foofu la lu ngeen mën a dégg muy lu neex muy naqari lii dara gënu koo màgg la sa waajur génn àdduna da daj la jamono bépp na ñëw leen taal fii ay xewal sàkk sarax ñaanal suñu maam ñi ko ñëw di gën gisante saafante dara gënu ko rëy boo amoon na milliard bi mënoo am lu mel nii kon bàyyi ji bi jërëjëf ñu bàyyi la ka sama yaay xéwal bi yëpp bàyyi àll moom wax dëgg yàlla bu doon waajur gën a mooy da nga ñaanal xéwal la mbëgg la yàlla yàlla jot la ci leen dañ leen jël par kenn kenn def leetu yàlla fi yàlla fi tuba fay jërë ngeen jëf ëppoon naa bañ a wax macha allah jërëjëf bàyyi te yëpp ndax benn mooy lépp moo tax du gàmmu gi jub see ñoom ñëpp ñu waaj takkatoo ànd doon benn liggéey bi ba mu tàmbalee ba léegi ñoom ñëpp kenn def absent ñëpp ñëw ci bis bi nekk loo xam ne mbokk mooy lépp maam àlla daanaka a baax di wax suñu mi def na ko ñoo ngi bu baax di leen gërëm boo gisee ni xam ne ànd na amuñu xaajale ko amuñu ngiro amuñu ŋaar sunu xale yi nga xam ne ñoo fa ne ak Jibi Gueye mi ak Aline Gueye mi ak ak Cheikh mi ak Amar Gueye ma nga xam ne mu ngi ca réew jàppale noonu Tafa di a taaw kër gi taw ah, ah, wasa wasale taaw ak ak am Tafa ah, ñu jiital Baye Mandiaye teg ca Baye Serigne mi Baye Serigne nga xam ne du lekk wàcc na du naan wacc na du dox waa kër mukk lu mu jox teg ca Baye Alaaw ñun ñëpp benn la fekk suñu jigéen bu baax rek suñu jëkkër di faam ak rakkam kër àll mbëgg moom ñëpp benn góor ak jigéen magal la sant gi nag neex na loolu waaye bàyyi seen nii sant nañ ko ñun jéeg bi sant nañ bàyyi seen bu ni fu mën a dem bu nu àndee moom dul paas fu mën a dem oto yi dañuy mujj sax rus ba duñ ànd ak moom dem Dakar wala Touba mooy paas mooy def lépp ba ñu du lekk wàcc nit naan wàcc rawatina waa yàlla may jàmm ak xéewal ak gudd fan ban teewaat ko bu déwénee ci waañ wi te lépp yokku ba ñëpp dëkk ci sëñ ma taxaw tey sama yaay laa fi taxawal ndax sama maam Fatma moom lañ jox maam jëm bëgg a jaw sama maam àlla yor ba yóbbu ko kër Gumba Jóob ma fa caane caane dem njabi jur ma ma dellu siwaat dellu siwaat ci biir juddu kon man fii kër damaa ñëw ñu man ma alam ndaw mi kër ba ñëw dañ maa indi ni ma fii mooy sa kër ma taxaw sama kër ma sama impaañ Penda Njaay kër ba ñuy séddale moo ma jëkk sédd bool ci njëloor bàyyi ma Njaay taxaw jàpp cër boobee jàpp cër boobee bàyyiwu ko bàyyiwu ko bàyyiwu ko bàyyiwu ko doomi njëloor na fu mu nekk day tekki ndax li tax dañuy tekki bàyyiwuñu seen cosaan ñu cosaan ba cosaan ran lañu jël xarit ni fa tegg ba cosaan jooy kon dañ leen di ñaanal fu ngeen nekk yal na leen yàlla wan lu kawe njort yal na yàlla defal fan wu gudd ànd ak jàmm sunu jotaay bi yal na ko daje téeméeri jotaay jur ñetti fukk te bu kenn wuute njëloor taaw ba caat góor jigéen mag ndaw sant nañ ñëpp ñëpp baal nañ ak ñëpp nañu ñëpp baal ak ci barke Seydina am amet lii lépp nag càkke fa ñaa te yéen mu jëwu leen pousse bi mu réer wasala. ah kon bu ko defee mën nañoo waxaat ne suñu maam Fatou Gueye dekkiwaan ndax njabootam dama ñoo fi taxaw warkal kon dañuy sant yàlla bu baax a baax boo gisee xale yi ni ñu àndee nga xam ne mag ñi dekkiwaat nañu kon ni ñu waxoon ëttu maam àll mbëgg ñaari ëtt yi benn ëtt la warkal kon dañuy bàyyi bàyyi moo kàddu gi rek dañuy sant kàddu njaboot bi. yéen xale yi ñu ngi sant bu baax di leen gërëm bu baax a baax a baax di leen ñaan di leen ñaan yàlla mi nga xam ne mooy maye yàlla saa borom yokk suñu wërsëg baax a baax ndax wax dëgg yàlla li ngeen def rëy na lool ba ak ci lool ndax dëkk bi tey bari na ay doomu aadama yu fi daje yoo xam ne sii mosu fee ñëw dañoo dikk ngir yàlla ak bokk dañoo dikk ngir yàlla ak xamante dañoo dikk ngir yàlla ak fédéral kóllëre kon nag ku fi taxaw ku fi teew ku ne ñu ngi leen sant ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen sant ñu ngi leen di gërëm ndax xale yi wax dëgg seen taxawaay rafet na seen defin rafet na seen doxin rafet na kon nun mag ñi mënul sant noonu leen sant dañ leen sant dañ leen gërëm bu baax a baax a baax ah sunu jeex sunu sunu goro yi ak sama soxna yéen ñëpp ñu waa dëkk waa dëkk ñi mboolem ku taxaw rek sant naa lu baax a baax ndax dikk ndax sama kër gi li fi nekk ci ay doom aadama defe woon naa ne xamuñu ma. macha allah jërëjëf kon Baye Mor nañ ko mayam ndox ndeysaan xol ba sedd moom ñu jooy waaye dañuy continuer liggéey bi fekk fi soxna yu baax yi teer kàddu gi ci ah Badiane Anta kon nañu mbéy mi bàyyi Mor ndax xol ba sedd ndeysaan. kontaan naa trop uh-huh. uh-huh. uh-huh. xale yi ñu mën a ñëw déwén. waaw ak maam Jibril Diakha di doomi maam Jodor gi tubarkala bu ñu neexee ñu ne maam na bu ñu neexee ñu ne Jibril Diakha na waaw lépp ak njabootam la tubarkala ah ndax boo xoolee nii lépp gis nga lépp jabar ji fekk la dama ko waxoon léegi ëttu maam àllam bëggee àllam moo ne woon ëttu bu ci nekk sama soxna fa wala sama doom wala sama jarbaat kii ñu jógee tey préféré kër maam àllam bëggee kii doomam la waaye dañoo ñëw fekk bi suñu jëwriñ ñu naan ko grand seexloo kon xëy na duñu yaata dañuy bàyyee moom kàddu gi mu gën a concentré waa bi jox sa ñibla jox soxna yi ñu ma a jóg euh, man mii nag maay seen xalifa ñoom ñëpp euh, di doomi yi Gueye te Abibou Gueye Jibril Ceeka ko Euh, kii di sama rakk nekkal na fi di suñu xalifa di di di di euh, Ibra nga xam ne moom it ndeysaan euh, mooy doomi Modou Mariama mi nga xam ne mooy magi Abibou Gueye moo ne ci kër gi moo nu fi nekkal donc ñun ñëpp surtout Jibril tekkaloon ci njabootam la nu lii nag day loo xam ne yàlla nanu sans borom fayal mag ñoo lii ñuy def nii mag ñee ko fi bàyyi ñoo ko fi naaloon ñaan yàlla rek eh, di ko gën di rafetal ba bu ëllëgee nu suñuy doom taxawee ko yàlla mën na ko yàlla na ko def ci barke ci alxadim jërë ngeen jëf yéen it taxawaay bi rafet na Mouhamed Gueye taxawaay bi rafet na waañ waa ngi nii comme ça ni ko Cheikh waxee rek ñi muy ëttu Cekka di ëttu Marema ñi ñëpp ak njabootam la wax dëgg yàlla sant ñëpp di gërëm ñëpp jàpp nañ si moo xam ñi si àll bi moo xam ñi si ji moo xam jigéen ñi ak góor ñëpp jàpp nañ si maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp

dañ cee kontaan ndax ñun ñoo sañ toon kër gi maa ko sañ toon maa ngi sant yàlla baax sama sëriñ bu ba di sëriñ ñaan ko du di wér ah ak moom noo ñu ñaan ñu jëm kanam rek di ñaanal sama doom te moom bu woon ak man ban fi jógee dafa Touba kan kër gi nii ku fi taxaw moom a te kenn defal ko ci taxaw may mag moo ko dekkalaat na ma ko ñëpp ñaanal mu gudd fan te wér yàlla lafal ko ko ak ak ko Serigne kii ñoom ñëpp sëti Jibril Cekkal lañu kii moo yor daayira bi ci Kébémer kii moo yor daayira ba ca Ndakaaru waaw tey ñoo ngi fii ci ëtt bu mag ëtt maam Samba Alsan ëtt maam Njaga ëtt maam Ablaye Tubarkalla waaye ëtt maam aussi ndeysaan tey xool sedd na mais xam ne mag ñi dekkiwaat nañu Tubarkalla ñii dañoo def loo xam ne xamuñu nii day mbir moo xam ne fii ne tubaarkàlla koo gis sa xol dana war a seet ndax bu nekk jur gi ñu ne Astou Gueye tubaarkàlla ku jur gee ñu ne Ablaye ku jur gee ñu ne Njaga kii sëtu Ablaye kii sëtu Njaga loolu a doyoon sëkk boo ma dara gàtt na lu ñam yu ñu defar sarxe ko ay yiw ci nekk yoo xam ne li ëppoon naa bañ a def kon daal li nga mën a xamal li mooy atum mag bi nga xam ne si mooy atum maam Samb Alassane atum maam Modou atum maam Alla atum Ndiouga ndeysaan tey fi la nekk bàyyi bi ñuy wax yow ñëw fekkee tey ñu yàgg xewal yi ndeysaan mag ñi bëggal gan kon na xool sedd na kon nga lay maa nga doxal rek fii mooy atum Samba Alassane borom alxuraan bi kooku mooy Baye ni jooytu na fi ak Mourou bi ak Ablaye Gueye tubaar fa kàlla macha allah Ameth Diaw nga nee mooy sa baay doy naa ñu fintal mooy sunu ndey Papa Gueye nga ne mooy taw Ndiaga Gueye Ndiaga Gueye ngi ni mooy taw Abdoulaye Gueye soxna Fatou Seye soxna Thiam Seye soxna ak Serigne Mame Gor Seye ñoo fi nekk waa kër njabootu Astou Gueye ànd ak sëti Samba Alsane ak sëti euh, maam Alante Ndiouga ak sëti maam Abdoulaye Gueye waa Alpha Kalla kenn wala yow waa Mbour ñoo na Cheikh Seye ñoo ngi ci biir néeg ba waa kër maam Aram Gueye waa kër maam Bitu Loxo Gueye ñëw na waa kër maam Aram Gueye ñëw na waa Alpha Kalla suñu gàmm gii dañuy ñaan yàlla lu mu bëgg ci suñu dëkk maam bi yàlla sama borom may nu ko ci barke sëñ Ndiaye borom dëkk yow bëgg nañ fi ndox bëgg fi tëli bëgg a dolli yëgale jumaa ji daal lampi ci kàttanu borom Tuubaa Mbàkke loolu la ngeen ko may mooy booloo rek doon benn loolu lañ bëgg amee delloo nag amuñu payam yàlla na ko sëñ Bamba fay lii lépp mooma daa nañ ko am nag waaye